yeewu bi metti lool lu toll ci juróom ñetti nit ñàkk seen bakkan juróom ñaari nag file lañ ko ñàkkee ci saa si ak itam ñi nga xamante ni am nañu ay gaañu gaañu yu metti loole mooy bilangu accident bu metti bi nga xamante ni am na diggante Kaolack ak kafrin ci wilaasu Dagga Jaxate li ni mel nag nekk lu metti ndax kat minicar bi dafa doon dépassé te si beneen axe bi camion bi mi ngi doon ñëw minicar bi nag moo doon dépassé te gisandoo nañ ko comme ni ma ko waxee léegi rek am na ligne continue biir dëkk la xëy na dawalin bi su fekkoon te woon na respecté nañu ni ñu war a dawale accident bi mënoon naa ñàkk mbaa du méttee nii parce que ligne continue ngi fi tableau limitation de vitesse mi ngi fi biir dëkk la même su ko loolu lépp amuloon biir dëkk la te wax dëgg yàlla euh, ñett juróom-ñett ñaari nit euh, ñàkk nañ seen bakkan ñu leen di ñaanal yàlla mu xaril naa jana waaye métti na lool juróom-ñetti juróom-ñaari nit yi ñeenti ñi jigéen lañu Euh, ñett yi nekk góor te blessé yi bëri lool aussi. mu mel ni excès de vitesse ak non respect de la route mu indi li ni askan bi nag jaaxle lool di woote wallu waaw dañ ma accident bi yuuxu yi laa dégg daw egg si euh, fekk euh, nit ñaa ngi fi ñu génnee nit ñi. lu métti lu métti lu métti accident métti na trop parce que vraiment juróom-ñetti nit wala juróom-ñeenti nit fu ñu génnee àdduna ci accident. fii dafa doon dëkk boo xam ne accident yi bëri nañ fi trop. trop trop trop accident yi bëri nañ fi parce que doo natt mukk euh, deux mois wala trois mois yoo xam ne amul koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ci tali bi vraiment métti na lool euh, ñu joytu woon ko euh, ci autorités yi ñu defal ñu ay doodaan wala bu fekkee mënuñu def ay doodaan nañ bàyyi gendarme bi ñuy monter ci tali bi parce que gendarme même même bu dee bu dee fu dara moom li fait que mu taxaw ci tali rek sécurité la ci ci askan bi ñoom sax li ñu bëgg nee nañ ay doo daan li ni mel dina leen indil kaaraange waaye dina tax itam ñu mën a wàññi l'accident yi ñi nga xamante ni am nañu ay gaañu gaañu nag ñu ngi ci hôpital régional bu kaw Kaolack ñu leen di fàcc am na ab enquête nga xamante ni ubbi nañ ko ngir rek xam ana dëgg-dëgg lu indi jéye bi